mais làmb ji nga xam ne moo dox diggante Modou ak sita maanaam combat mystique bu yéeme yéeme moo ci nekk fi ma njëkkee nag mooy Modou Lo mën naa ne mu ngi doog am combat lépp loo xam ne doon na ko def ci kaaraange lépp loo xam ne doon na ko def ci lu koy may ndam lépp loo xam ne moom la def ci wàllu sarax na ko gën a def gën a xoolaat maanaam toogaayam. ak ñi muy andal ak fi muy dem ndax gaay yi pare nañ ngir daanel ko pare nañ ngir sodd ko nañ fi defoon yikini nga xam ne dafay daan di daan bu jaaxal ñëpp ñu sodd ko ba daanel ko maanaam pala boobu dafa ñëw ci modlo kon modlo Lo maa ngi koy diggal di ko conseil na xoolaat toogaayam bu baax lam ji mu jël ko à sérieux naka jik noonu la daan jëlee waaye nag maa ngi koy gën a ko jël à sérieux bañ cee yakamti jël temps fépp fu daa dem di fa am ndam na fa dem fépp fu mu yaakaar it bu fa demee am ndam na ko def. jërëjëf mbokku internet yi seetaan seen site internet Ngoy TV ñu siyaar leen bëggewaat leen bu baax a baax bu ngeen gisee jëm ji ñu toogal tey nag neex naa présenté muy Serigne Aliou Ndiaye góor yàlla nekk fii nii ci yombol Mbédou Fass à Fass pharmacie Afia 5 ngeen miin ko lool ci seen site internet Ngoy TV la chaîne de peuple chaque jour mu fi nekk di waxtaane xam-xam tey nag ñu seet siwaat ko am lu bees tax nag lu fi nekk tey bu leen fàtte ne Serigne Aliou Ndiaye mooy yor kaddu kër gi ak ndombo yi nga xam nii wër na àdduna lépp ci biir émission bi di ngeen ko gis dañuy bàyyi sëriñ bi rek mu noyoo ñu doog a xuus ci waxtaan bi acca sëriñ Aliou ñu ngi lay noyu bu baax yaaram aouzu billahi samil alim min sari seytaani rajim bismillahi rahmaani wa yassir li amri waxdul xuqdata min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki àdduna mbokki internet mbokku ngeytu wi ñoo ngi leen nuyu baax a baax te di leen ziar ngeen ngi ziar jiital nag suñu nuyu ak suñu ziar xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal fànn gudd ak wér di ñaanal sama sëriñ di ko ziar sëriñ Aboubacar Touré moom Cheikh Abdoul Karim Touré maa ngi koy nuyu di ko ziar di baax sama wasila sëriñ Cheikh Touré moom sëriñ Modou Touré moom Cheikh Abdoul Karim Touré. maa ngi koy nuyu moom di ko ziar bu baax di ko ñaanal fanu gudd di ñaan mbooleem njabootu Cheikh Abdou Karim Touré yëpp di ñaanal mbooleem euh, xalifa généraux yi ci biir réew mi yëpp ak kilifa aada yëpp ñoo ngi leen di ziar baax a baax di ziar it xalifa général du Baye Fall di Serigne di Mbenn di ko nuyu di ko ziar moom it di ko ñaanal fanu gudd ak wér macha allah. jërëjëf mu ngi noonu noyo bi am na solo bu leen fàtte nag ne ñu ngi ci actualité yoo xamante nii sëriñ bi nee na diggante Modou Lo ak Siteu am na lum ci gis am na lum ci bëgg a leeral mais gars yi teg leen foofu seen loxo ñu ñëw dañuy waxtaan ak sëriñ Aliou Ndiaye ci wàllum xam-xam tey dama bëgg mu sëriñ Aliou leeralal ñu dëgg-dëgg listixaar dëgg-dëgg lan mooy listixaar ak lan mooy seet ak ban soxla na nit ki war a am tey pour li euh, sant sëriñ tey mu listixaaral ko sëriñ Aliou waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziarat bu baax a baax macha allah comme ni ko sëñ Moussa waxee borom Ngoy TV danañ ñëw ci làmb ji am luñ ci wax tuuti donte ñu moom baaxoo ñu wax ci làmb waaye lépp lu ñu gis rek loo xamante ne buñ ko waxee nit ki dina ci jaare am kaaraange wala mun a mucc ci lay ñëw ci moom di ko gàllankoor wala lu koy may ndam buñ ko xamee danañ ko wax waaye nag bokkuñu sëriñ yi nga xamante ne. dañuy toog ci internet naan diw mooy daan diw wala diw def na leen déedéet man duma sëriñ boobu man sama rôle mooy faj aajo nu mu gën a gaawee képp koo xam ne nga jaaxle boo fi accès sa aajo faju lu ma gisit loo xam ne dafay xet li nit ki wala ma koy dimbale wala ma koy may ma ko gisee dinaa ko wax mais làmb ji nga xam ne moo dox diggante Modou Lo ak Siteu maanaam combat mystique bu yéeme yéeme moo ci nekk fi ma njëkk nag mooy Modou Modou Lo ni naa ne mu ngi doog am combat lépp loo xam ne doon na ko def ci kaaraange lépp loo xam ne doon def ci lu may ndam la def ci wàllu sarax na def ak ñi andal ak fi muy dem ndax pare nañ ngir ko pare nañ ngir sodd ko nañ fi defoon Yékini nga xam ne daan di daan bu jaaxal ñu sodd ko ba daaneel ko maanaam palaa boobu dafa ñëw ci Modou kon Modou maa ngi koy digal di ko conseil na xoolaat toogaayam bu baax lam ji it ma jël ko à sérieux naka jëkk noonu la daan jëlee waaye rek maa ngi koy gën a conseillé na ko jël à sérieux bañ cee yàkkamti jël temps am fépp fu mu daa dem di fa am ndam na fa dem fépp fu mu yaakaar it bu fa demee am ndam na ko def parce que combat bi combat la boo xam ne maanaam mbooloo ñoo koy sodd ngir daaneel ko parce que dafa am lu ne ci loxoom loo xam ne. ñëpp a ko soxla te dafa am ñoo xam ne loolu mu yore noonu dafa am ñoo xam ne dañ cee bëgg jotaat juñ nag doon doy na borom xel dañ ko bëgg a jotaat te jotaat googu nag dana am ñoo xam ne dinañ jóge ci langale dugg ci lang yi ngir xeex Modou Lo ngir daaneel ko ngir bu Modou Lo daanoo Siteu dana am lu jël ci moom muy roi bi roi boobu nag bu ko Siteu jëlee mën naa am du yegg ci loxoom te Modou Lo bu sagganee danañ ko daan jël roi ci loxoom mu dem ci jàmm gën ci Siteu mais si tey bu góor góorloo maanaam euh, euh, roi bu ñëwee ci moom lu ci moom xamul tax dafa am ñu koy gunge ci suuf di ko xeexle mais xeexle bu ñu ko xeexle gëmuñu ko xeexle gëmale fexe mu jut roi bi ñu foqatuwaat ki ci moom jox ko jox ko keneen kon loolu moo tax ñu ko jàppale ci suuf te si itam moom bu ma dégloo seetaan ma dana xam ne maanaam am na ñu ko jàppale ñoo xam ne daawuñu ko jàppale dana am ñu bees ñoo xam ne daaw leen gis ci làmb ji ngir ñu koy ngemmale ak di ko jàppale ak di ko joxe consein ak di ko daan defal ni demal fi defal lee ngir bëgg mu jël roi bi te bu ko jëlee loolu escalier la boo xam ne da ciy jaar rek barastiku mu mu rëj kon sita maa ngi koy wax ci côté boobu na ci def attention bu baax te ci bu baax a baax a baax xam ne moom itam ndaw la mu ngi ci yoon mbokku murit la mbokku Baay Faal la xele bu am jom la ku bëgg lu muy def la ku am fule la ku am mystique la nit ñi bëgg lañ ko am na supporter am na bayre waaye itam na bu baax nan lay def Modou it kenn du ko saax-saxe déedéet Modou Lo kenn du ko saax-saxa de loolu moom maa ngi koy xamal Zita Modou Lo ci xam-xam ak gallaaj ak tey xam li ngay def ànd ak fitt ak gaaw ci nga mën a daane Modou Lo leen loo mën a ko daan Modou Lo loo ko def yëngalu ko kon Zita na def attention bu baax a baax ci làmb ji dana am ñu bees ñu ñëw dugg ci dugg dugal loxoom ci combat bi mais buñ ko duggé bu jël rawaa bi ñoom dañuy rëccuwaat san loxo jëm la daan ci suuf dañ la jaar feneen fo xamné fofu foofu léral ko leeral ko mais bu jotté dañ ko lér incha allahu taala li lañ am li ñu wax ci lamb ji sha allah. Serigne Aliou léral yi amna solo kon gaay yi ngeen modlo na gëna a bu baax ci tay itam dafa am lo soxla to li nga soxla mu ngi ci modlo nit nak bu soxla dara fune la nit di joggé ñew pour dugg tanatal ñi ngay andal bu baax comme niko sering bi waxe serigne bi kon ñu dug rek ci xam-xam bi dug nag ci walum set ndax itam nit bu ñewé mëno dug ci ay item to sétaloko serigne sering Aliou nan lay sété waaw. waaw euh, serigne Moussa sha allah laaju amna solo lol set nak dafa nek lo xamantene ne depuis serigne bu tok di liggéey war nga mëna set ndax euh, pour nga mëna faj aaju nit ki foo nga xam ki lan moy galankoram lan mooy feebaram lan mooy jafe-jafeem nga mën koo faj loolu nag li la koy xamal mooy seet seet nag dafa bari ay façon dafa bari ay façon yu baree bare yoo xam ne jàng nañ ci seet yu baree baree bare yoo xam ne xam nañ ko waaye dañ cee tan ñaar ëpp lu ñu koy defee xam ne lu jamono xat xat xat lu ñu ko agsee rek danañ ko mën a seetal foo mën a ne ci àdduna itam biir réew mi ak bitim réew boo wootee téléphone mën nañ laa seetal seet bu gaaw gu leer mooy seet bu ñuy def ci wàllu kurus nga xam ne ba ma yoon 2 heures de mën naa la ci xoolal ak bi nga xam ne dañ ko jëf ci téere man yooyu laa ëpp lu muy seete waaye nag suñu xam-xamu seet rom na foofu parce que listixaar am na listixaar nag danañ koy def mais listixaar day am aaju yoo xam ne da koo jar am aju ko jarut listixaar moom guddi lañ koy def ci di ko def ci tur yàlla ñaan ci yàlla ci aju ki saa borom wan la ko am na ñoo xam ne dañuy seete ndox am ñoo xam ne dañuy seete suuf am ñoo xam ni seet sax xottu gerte seet dafa bëri façon waaye lii suuf si ak ndox mi ak xottu gerte bi yëpp man dama ko maîtriser mais ñaari yi laa tànn di ko seete mooy seetu téere ak seetu kurus laa am lu may seete seet nag li tax mu am solo mooy nit ki ba accès mën na am jafe-jafe jafe-jafe boobu nag dana ko jaaxal tax maanaam la muy nekk di am ay gàllankoor doo xam lan moo ko sabab boo ko seetalee xam ne lii mooy sa gàllankoor lii mooy saraxam li nga mot a moytu li nga mot a def boo ko defee nit ki nga mën a saafara jàngaroom njaqare gu mën a nekk nga mën koo saafara mën koo tegaat ci yoon mën koo digal ay sarax mu def ko nga mën koo ñaanal ba nga xam ne lépp loo xam ne ay jafe-jafe mi la woon suñu borom dina côté gi ba mu set wicc mën a kaat ci jàmm ak salaamam incha allah mu ngi noonu kon seet noonu lay demee façon seet yi bari na mais wax na leen ba nga xam ne ñaar yi nga xam ne moom lay taamu di seete képp ku ñëw itam noo bëggee rek mu seetale la ko am na listixaar listixaar moom suñu Aliou damay dégg ñu bari naan dañuy jël ay cinq personnes listixaaral leen par guddi man pour man listixaar ah kenn nit nga ko war a jël wala ñaari nit ci guddi daan ndax ñu koy laaj te bari waaw loolu am na ñu koy laaj waaye loolu ah, bari na ñoo xam ne dañ koy wootee fekk mënuñu ko listixaar gi jaar yoon gën kaa bari genn kaa bari war a weesu juróomi nit li listixaar moom moom listixaar bu tegu ci ci yoon la man nag gisoon naa góor gu ko daan def daana dem téeméeri nit par bés lu ko ëpp waaye kooka loola listixaar lañ ko demee kooku dafa dafa amee jinne bu dee ko amee jinne mën na ko mais nag Sénégal nag bari na ñoo xam ne dañuy wuti damaa amee jinne fekk amuñu dara buñ nelawee sax xamin lu ñu reeree jinne ñi ko amit muy dëgg mën nañu ko man dem naa ci Casamance góor goo xamante ne maanaam saa yu xëyee ku ci nekk dana la jox kayit boo xëyee boo ñëwee day bind benn kayit jox la ko boo xëyee boo ñëwee kayit bu nga ko joxaat wax la soxla nga xam ne guddi gi yëpp moom jine jine ji lay toogal ku ci ne mu jox la turam mu wax ko soxla mu bind tënk bind bind bu bët set ma xëyee jox nit loolu nag mooy ki ami jine mu mën loolu waaye listixaar bi tax ñaan listixaar ci nelaw nay newee ci nelaw ndax ruu mooy gis ruu mooy gis te ruu dafa am ñetti étape yu dafa am lu arab li wax ak ruuxul xayawaan yi mooy ruu bi nga xamante ne maanaam dafa nekk ci jëmu nit ki waaye nit bu nelawee ruu day gën a wëti mooy ruuxul xayawaan yi am lu ñu suful gitaar suful gitaar mooy jëm ji tëdd ci lal bi mooy jëm ji tëdd nga xam ne moom mooy ban bi tëdd ci kaw mooy ruuxul xayawaan yi léegi asuful suf asuful gitaar mooy mooy mooy jëm je aruuxul xayawaan yi moo dox diggante rapport ak ruuxul xaqiqi aru xaqiqi mooy dëgg-dëgg ruu bi nit ki li muy noyee xam moo tax muy dund nga xam ne ruu bu génne ci moom day faatu ruu boobu nag laa suñu borom la suñu borom mooy benn jaam waxtaane ko ndax secret yu ci nekk mooy aruxul xaqiqi mooy dëgg-dëgg ruu nit ki amee di ko di ko di ko di ko bu nit ki bu defee listixaar nag maanaam ruuxam xaqiqi dafay wetti dem ci barabu suñu borom yi xam la suñu borom nam ci jaam bi mu xamal na ko moom ruuxul xaqiqi wàcc ko mu jaar ci ruuxul xayawaan rapport bi dox diggante suuful ruuxul xaqiqi ak suuful rapport bi dox seen diggante mu wàcc ci asuful gitaar xamal ko jëm ji xamal ko xamal ko bi nit ki bu yeewoo xam ne ah man kat def naa lii waaye dama defee lii damaa gént lii fekk gént boobu ruuxam mooy wetti dem a ruuxul xaqiiqi mooy gën a dem wetti wettee bu dem nag dafay arrêté ci asuful gitaar jëm ji tëdde a ruuxul xayawaan yi mooy rapport dox seen diggante nga xam ne ci misaal tey yow mu yor téléphone di ma woo yaa nga fa gën a sor di ma woo mais téléphone nga yor ma di ma woo moo ay su moo ay ruuxul xaqiiqi asuufu asuuful gitaar mooy jëm ji tëdd mooy beneen téléphone bi tëdd ak xayawaan nag mooy lu jokkali buum bi mooy jokkali buum wax ji fi muy jaar xam nga gisoo ko wax ji mu ngi dem di ñëw mooy arawul xayawaan yi léegi nag loolu mooy waral nit ki saa yu géntee mën naa gën dem ci barab yi sore sore sore mais saa yu nelew bu tiit bu tiitee maanaam dafay tëb tëb mel ni ku tëb jóg tiit bu tëbee jóg rek mooy arul xaqiqi dafa dugg ci asuuful guitare doole da ciy dugg ci doole ki bu demul bu xamatu fu mu jëm day delloo fa mu jógee woon ruu bi dama xamatu fu mu jëm wala mu gis lu mu ragal day daw dugg ci jëm ji doole nit ki daal ne bërët daal di yeewu xam ne moom ci gént la ne woon wala dafa tiit loolu mooy rappalu ruu yooyu xaar nag moo lay won ni kon mënta dépassé juróomi nit leneen loo ci dolli doo gis dara diggante yi jaxasoo parce que nit ñi bokkuñu am na ñoo xam ne bu nekkee ci jafe-jafe boo leen listixaaree yow sa bopp yow mi listixaar maanaam jafe bi ñuy dund yow yow di nga koy dund ci biir gént bi nga xam ne kooku bu ñu doon xeex tey yow da ngay gën di ay paaka dangay ngay génn ñu lay dàq da ngay génn maanaam di yéeg wala ngeen di dugg ci ay kamb wala nga génn ci naaw loolu nit ki jafe-jafe yi muy dund moom ci nit ki ñëw listixaar la muy dund ci jafe yow muy génn yow muy listixaar loolu ngay dund ci biir guddi gi nga xam ne bu yeewoo sax da ngay mel ni ku dóor yat tax son gi ngay son ngir li ngay jànkonte ci gis-gis yi ngi si war tubalu listixaar kon loolu képp ku la wax ne mën naa jël fukki nit téeméeri nit ci benn listixaar guddi wax loolu am listixaar dafa am sart listixaar dafa am sart mooy sol yëri wax tal tëdd ci dara bu weex tàll laal parfum bu neex julli ay raka ñaan ba pare doog a tëdd suñu borom xamal la xamal googu nag loolu mooy listixaar bu dee seet nag moom bokkut ak loo seet moom bu la neex mën ngaa yéndoo seet ba jënd so loolu mën na nekk mais listixaar lii mooy listixaar nga xam ne mën nañu ciy tënk ci gàttal incha allahu mu ngi noonu jërëjëf kon listixaar mu ngi noonu nit ki nag si aliw dafa bëgg boo ko listixaarale wala nga seetal ko pare boo xam jafe-jafeem nit ki dañoo soxla ubbeeku soxla bayre mi seeyeeg ñun ñi nga xam ne ñu ngi yor ay micro yëpp dañoo bëgg bayre ak si ak ubbeeku tey si Aliou nit bu gisoon émission bi ñëw ba ci yow ne damaa bëgg ubbeeku nan ngay jëflante ak moom waaw ubbeeku moom macha allah ubbeeku moom wax dëgg na yàlla li nga xam ne saa borom dogal na ñu jot a jëflante ci ubbeeku wax dëgg ñu ngi sant bu baax a baax képp koo xam ne dangaa tëju ci am-am maanaam wala liggéey def laa jafe wala am-am di laa jafe wala yàqu-yàqu ci sa wul wërsëg lu mu ci mën a doon moo xam cat la moo xam rab la moo xam saytaan la moo xam liggéey la lu mu ci mën a doon ci sa yaram am nañ sangat yoo xam ne bi ñu liggéey ci weewu mbaam sangat yi ñu liggéey nag bari na ba jéggi dayoo mais weewu mbaam bi moom. beneen affaire la ci sangat amul beneen mbindeefu yàlla boo xam ne maanaam jafe-jafe dina nekk sa yaram ma jox la sangatu weewu mbaam te dañut defe naa loolu lu ma ci yor ci ay témoignage ak ñi ko jox ñi ma ko jox ñu xam ko xam dayo bi ba ku ma woo sax ñaare li ma wax moom ki ma boole yow nee na defal ma weewu mbaam bi weewu mbaam bi dafa am solo parce que ji mu mbaam rek doy na émission su ma ci doon waxtaan fii lay fanaan mbaam am gi mu am njëriñ maanaam ci wàllu protection ak kaaraange ak wàllu dindi ay gàllankoor ak wàllu ubbi nit mais wee bobu moy dox ci kep ko xamne rab def la jàpp wala zaytani wala jinne wala liggéey wala ngelew wala nga tëju wala ngay xex ci barab wala bu sax kaaraange boo xam ne ku laal gis ko facilement num gëna gaawé koku dañ ko liggéey ci wé mbam mi muy sangat ba xamne machallah macha lolu passé nak ki nga xamne ne nga yaramam dafa set ba pare mu bëgg ubé ko mo xam da nga bëgg tukki mo xam da nga tukki liggéey jafe la mo xam da nga tukki ay kayit jafe la lolu it am na sangat espèce yoo xam ne kep ko xam dañ la ko defal dañ la garanté mom ubé ko ni nga ko def da nga am liggéey di nga am xaalis di nga am bayre fi nga nekk suñu borom dana la yëkkati ba di nga sant bu baax a baax a baax bu dee ñi nga xam ne dañoo feete bitim réew am na sangat yoo xam ne bayre nasaraan la peut-être dinañ ci ñëw ci kanam ak ndomb gi nga xam ne ay compagnie waaw bayre nasaraan boo xam ne mboolem ñu ngi ko jox yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci sama biir groupe bi ah, danañ ma dégg ñu ci baree bare bare sangat boobu wóolu nañ ko te bëgg nañ ko te naw nañ ko te gis nañ ci résultat gis nañ ci njëriñ bu baax a baax boo ko sangoo incha allah nasaraan yi danañ la jox bopp bo beugé liggéey da nga ko am bo beugé ay kayit dung ko am boo bëggee ubbeeku it di nga ko am moy sangat bobu non moy sangatu biñu xamné bayri nasaran la ànd ak ab ndomba bo xamantene set gaw la ci gannaaw set gaw ci ci ci ci ci ci kanam. foofu sax lañuy duggé ci ci ci ndomba bobu sëñ Aliou yakarna mo nek ni nii ah? wa moy bu xonku bi. wala nga wonalé ko gaay ñu gisaale ko. wa kay ndomba gi moo am 4 euh, gaw ñaar gaw yi gaw yi wex la. dafa am lu muy signifié ñaar yi yu xonq la dafa am lu muy signifié amaat fii ñaari jigéen weex ak xonq amaat sept pas-pas ci gannaaw yii nii ki nekk ci réew nasaraan yi balaa mu koy tëj dafa am lu muy wax doog ko tëj nii tëjuñu ko bu ñu ko joxee borom ba pare nag am lu muy wax moom mu daat ko tëj ci réew moom nekk ba pare am na sangat bu muy àndal ki nga xam ne dafa nekk ci tubaab yi liggéey jafe ko wala kayit jafe ko wala bëgg a ubbee ko wala am xaaj jafe ko wala bari wala yaakaar su bari incha allah bu ko sangoo réew moom nekk tubaab yi danañ ko jox bopp te dina am bay rek te dina am xaalis insha allahu taala moom moo nekk nii kon gis ngeen ko noonu dañuy daal di demaat ci beneen bi rek présenté leen bii nii itam Serigne Aliou ci bi ci lan lay dox waaw ndomba gi bii kaaraange la ci mbirum noonu ki nga xam ne dangaa ne ci barab booy liggéeyee moo xam kër la foo mënti nekk rek entreprise boo mën a nekk wala place boo mënti nekk wala kër gi foo mën a ne ci kër gis nit di lay xeex wala mu lay noonoo donte junne nit la kenn du mën ci yow dara te képp ku la liggéey day dolli ci moom facilement nu mu gën a gaawee waaw galaaj même képp ku la liggéey ba la bëggee rey dafay dee ku la bëgg indi gàllankoor day ami gàllankoor mais amul lu nit di def galaaj bi ni sa ndig mu lay jàpp amut protection bu doy waar la moom it dafa am sangat bu muy àndal espèce macha allah moom itam kazalika gis nga am na gaw yi ci gannaaw yoo xamante ne te jëguñ ko ko joxee boroom moom am na lu ñu ko wax ci lay tëjee euh, gaw gaw yi amaat set gaw ci kanam set gaw ci kanam am na fooy toll yi ngay tëj am na yéen fooy fooy toll yi yéen ngay tëj mais képp ki ñu koy jox dañ la expliquer ndombo gi maanaam nu muy doxee mais moom kaaraange la ba xam ne lu lu la waaye def mu dellu ci moom te it dalay musal ci ay xeetu ay catak yu bare bare mbirum rab dala ci musal macha allah. mu mel ni Serigne Aliou dafa jël rek wàllu kaaraange doomu aadama. ah ne dal mom dal lim ci yor dal mention spéciale dal jéggi dayo ma sha allah ah, xam nga aduna mom, aduna bo fi nekké to amu karangé amu muccago mucc manam amu dara fonga nga am karangé ndax di gis ndaw lo xamné day xey rek mbiram soti mu am bayre am wërsëg ñepp bëgg ko ñepp bay ko xel mu ne ci yoon mu neex lool baax lool mais bu yàggee rek day ami tolof tolof dem ba lam amoon rek mën na koo ñàkk wala mu dem feebar feebar tëdd dootu mën a jóg lu koy waral mu ñàkk kaaraange ndaw bu nekkee ci yoon suñu borom da la ngay am dara jógal nga wuti kaaraange balaa muy wees parce que li ngay am nii am na ñoo xam ne buñ sañoon da nga ko ñàkk tey tey tey wala doo ko am kon nit ki bu fekkee ne na ci àdduna nekk ndaw na dem wuti gàllaaj na dem wuti wuti gàllaaj mooy tax sutura bi la suñu borom jox xiwal la jox am ñoo xam ne buñ sañoon tey tey da nga ko ñàkk tey tey tey kon nag li lay musal ci pexe noonu yooyu wuti kaaraange ba xam ne lépp lu la waay yéene ci lu bon mu dellu ci moom bu ko defee incha allah yow di nga àgg fi nga jëm te kenn du la yàqal sa teraanga loolu dafa am solo ci ndaw muy kaaraange waaw moo tax mu tànn ndombo yi nga xamante ne dafa gën a soxor waxtu wu nekk ñoo ngi koy liggéey képp koo xam sax da nga ñoo woo ci mbirum ñaan soxla kaaraange wala lu la tax a mucc li may njëkkaat mooy proposé la ndombo yi li nekk boo ko yoroon ngay teg kuluhum kenn incha allahu taala. macha kon gars yi mu ngi noonu kon kaaraange dem leen ngeen wut si ko fii nii ci Serigne Aliou Ndiaye góor yàlla à face pharmacie Afia 5 ci mbeddu Fass numéro baa ngi noonu ci écran bi di daw képp ku ko ci woo rek incha allahu rabi di nga ko jëw Serigne Aliou nag dafa am loo xam ne saa yi senegale yi wala boog surtout euh, commerçant yi dañ ko soxla muy samp ni ko mbër yi di soxlaa footballeur yi di ko soxlaa noonu ci seen kelip yi noonu la ko commerçant yi di ko soxlaa léegi muy samp Serigne Aliou yi dañoo bëgg ku leen di sampal mais pour ñu gis ku leen sampal day jafe. waaw jafe na lool xam nga li tax ndax euh, damay wax ne ak cëriñ daa yàqu léegi li ko yàq mooy ñi ci walliyant bokkuñu ci ak ñi nga xam ne xaalis moo leen ñor résultat ñoru leen man nag résultat la gëm ñi may seetaan te xam ma xam nañ loolu man résultat la gëm képp ku ñëw sa aju faju mais commerçant yi manam ñi bëgg samp bari na samp mom mën na sax ñepp ko soxla mais dafa am ñu ci gëna fess moy mbéru lamb yi ak commerçant yi mag yi xam bëggu ñu délu gannaaw yokkute lañ bëgg lool amna amna ndomb go xam bay refi la yem dama ngi nak liggéeyam yomut parce que juroom ñaari fan lañ koy liggéey buñ la ko joxé boko takké allah da nga am bayre te kenn mënu laa gàllankoor te sa wërsëg kenn mënu koo yàq am na sangat boo xam ne itam moom lay accompagner moom lay àndal sangat bi sa biir néeg nga ko sangoo juróom-ñaari fan boo ca paree di nga am bayre di am xaalis di nga am alal te it maanaam kumpa yu bari day denc ci yow lépp lu ñu la bëgg a def yow da koy xam lépp lu ñu la bëgg def da koy xam nit bu la bëggee xeex sax dangay ngay tëdd guddi ma diw ak diw mu ngi def ci yow nangam diw ak diw mu lay fexeel lu mu la jege jege jege lu mu la sori sori sori ku la fexeel yow da koy xam te duñ mën ci yow dara da ngay dem ba nit ki boo jàkkaarloo moom sax dangay xam ci moom lu bari loo xam ne kenn du la ko wax sangat bi mooy def loolu da samp kenn du la mën a daaneel da nga am bayre boo xam ne dina sori lool ba yéem la sa teraanga dina yokku ba nga ba nga yéemu nii dina am cofeel ci ba nga jaaxle muy góor ñigéen mag ndaw mais kenn du la mën a xeex boo moom ku la xeex dafay faatu ku liggéey day faatu kooku sangat la ak ndombo mais sango bi sa biir ne nga koy sangoo sa néeg bopp ngay fanaan ca nga koy sangoo ba pare takk ndomb gi di nga am bayre di samp te ku la bëgg a laal jóge fi samp nag mooy boo ko déggee samp mooy ki nga xam ne am amam waxtu wu nekk dafay jëm kaw di yokkute te kenn du la mën a xeex ndax Sénégal fii réew mu naqaree liggéey la ci ci wàllu yokkute boo bëggee yokkute ñu bari fadd say door say tàng daal ci suuf kon nag fexe ba am kaana nga ba xamante ne manam waxtu wu nek sa am-am de yokku to kenn du la mën a ku yokku ren bo dewen nit yàqalu la inshallah allah ko fukki at lo bëgg am ci teranga aduna di nga am waaye bo amun karange bëgg na ci yoon du soti kon samp limu muy njëkk def moy karange ak yëk sa tur ak sa bayre ba nga xamne lepp lo bëgg inshallah suñu bon dana la ko jox te benn jaamu yalla dina mën a xeex ba yàqal la lool moy samp jarajeuf sayidina Aliou ndjay gor yalla kon gaay yi ngeen ni nga xamanteni ni moy samp Euh, émission bi nag euh, bu leen fàtte ne mu ngi daw fii nii ci seen seen YouTube préféré la chaîne de peuple ci Ngoy TV ah ngeen mun ko fekk si fii nii à Yombol à face euh, Mbeddu Fass à face pharmacie Afia 5 ñaari numéro yooyu ci écran bi mooy numéro Serigne Aliou Ndiaye boo ci woote rek moom ngay jot seriñ Aliou dañuy ñëw nag ci ni nekk bitim réew balaa ñoo dem ci deuxième émission bi ndax gars yi nee naa leen saa bu ñëwee ci moom rek xaar leen deuxième émission bi. li ci ëpp ci bagage yi foofu lañ koy wonee incha allahu rabbi xaar leen ñu dinañ ci ñëw léegi mais sëriñ Aliou ñu nekk bitim réew dañuy soxla maanaam ay kayit dem ci ay maara yu bëri yenn saa sax yow mi am nga ci ay kaanit yi dañ lay wone ma ne dem naa ci sëriñ nangam mu lekk sama xaalis to fajuwul aw ma ay kayit ku la dégg ñëw ci yow pour am ay kayit bitim réew sëriñ Aliou. waaw loolu sawar naa ci tontu bu baax a baax ndax wax dëgg bari na ñoo xam ne am nañu ay kayit gannaaw yàlla suñu borom euh, suñ loxo la jaare mu nekk mbir mu jafe loo xam ne bés bu émission mosaa am ni bu jàllee naa ci bari ay appel lool bari ñu ma ko jooytu ci soxlay kayit ndax ku nekk Europe boo amul kayit mën a am liggéey bu baax ku amul kayit mën a am liggéey bu baax balaa nga am liggéey bu baax embauchement bu baax foofu nga am ay kayit ñu bari dugub bu ne dañ koy def ngir ami kayit takki soxna nasara nag loolu ne dañ ko imposé ngir bëgg am kayit tam xaw a jafe ma ki nga xam ne dafa soxlay kayit li ñuy njëkk mooy seetal ko ba xam jafe-jafe kayitam lan la jafe-jafe yaramam lan la fexe ba loolu xam lan mooy saraxam fexe ba jox ko sangat yoo xam ne bu dee ko am gàllankooru kayit la ñu jox ko sangat boo xam ne bokk na ci benn wax ne mu weewu mbaam bi ñu raxas yaramam set ndax nit fi ne nii pour nga ubbi nit ki faw yaramam set bu yaramam setee rek day neex a ubbi boo ko sangatee bu yaramam set nga doo ko jox ñaanu kayit dafa am ñaan boo xam ne may moo ko tax a jóg mais ñaan boobu kenn du tëb di ko jox nit te yaramam setut bu fekkee yaramam setut nga jox ko ñaanu kayit du am dara kon li nga njëkk a def mooy raxas yaram ba mu set nga jox ko ñaanu kayit bi bu ko sangoo incha allah balaa damay def ñetti weer kayitam dina dugg ci ay loxoom loolu dafa am loolu ñu ngi ko jàppale mbokku taal bi bare bare fii ci réew yu fasante ko am nañ ci ay yu bare bare macha allah waaye da nga gis ñoo xam ne it dañ lay woo téléphone dinaa barab yu bare bare bare bo daanaka sax seen ngëm-ngëm day wàññeeku li ko waral mooy yàgg dem ci sëriñ ci amoo résultat parce que dafa metti jël sa xaalis am sa yaakar gis nit ki ci extra euh, euh, ci ci sen YouTube gis ko yaakar ko ci kaddom ak ak ak melokanam jox ko xaalisam mu liggéey gisoo dara loolu dama ci am kay bari ñi may wax te loolu it ci mom moom lañ mooy ni ko loolu nit ki lo mënut waaye waaye bu enke xaalis jambour di tas yaakaram ndax ku jigi senegal gi dem bitim rew da nga jog ngir wuti lo amé amal sa bop telal sa njabot kon ab senegal nga comme mom di ab serigne nga kon nit ki bu fekkee mënu faj aajoom bu ko ënkee sa xaalisam boo mënu taf ñaan ci biiru këyit wala lu mu ci mën a doon ne ko wax de man mënuma ko wala gis naa ko ko man lu néew la nag ñu ñu koy def mais ñi loo leen sant ci sëriñ li loo leen sant di ënkee xaalis duñ la defal dara wala lu loo ci gis dara loolu àq la nañ ko moy nañ ko moytu bu baax a baax ndax tukkikat yi son nañu son nañu lool lool lool lool son nañu parce que ku amut kayit mën a am liggéey baax ku mënta am liggéey baax mën a am xaalis kon côté boobu ñun ci laasi képp ko xam ne dangaa am soxla kayit fexe ba diggante ñu incha allahu taala danañ la ñaanal bu nga am këyit ci diir bu gàtt incha allahu taala ok. kon gars yi mu ngi noonu kon Serigne Aliou dañuy daal di dem rek ci deuxième émission bi ñu bàyyi la rek nga noyoo ma leen di wax nag ne. première émission boo ko seetaanee te seetaanoo deuxième bi moom dangay perte ndax lu bare bare bari nee naa leen ci deuxième émission bi lañ koy waxtaane xaar leen ñu mu ngi ci suuf gay ñu bàyyi sëriñ bi mu tagto ñu ñëw ci deuxième émission bi. wa kay tagu tagu bi rek xana ñaan jam ci réew mi nuy wat suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Mamadou muntaka di ko dalee ziar saa borom guddal fanam to lim bëgg naal lim naal ci yoon ma borom tuba saa borom kattanal ko mo defu ñu ko bëgge nuy sama wa kër sama sëriñ wa kër sax bu kërim ture di leen nuy di leen ziar di ziar président jomay suñu mbokum séeréer la di ko ñaanal yeen bu woyof mboolem naan ci réew mi ak ñu ko bëgge saa borom kattanal ko ba mu def ko nu mu ko bëggee saa borom dolli jam ci réew mi ñi nga xam ne ñooy aji tawat ji saa borom fekk seen bopp ñi nga xam ne ñoo amagut te bëgg a am suñu borom may leen ay xiiwal may leen wér te yokk leen ay fan yu gudd ak xiiwal yu kawe kawe kawe barki borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf mbokk internet yi seetaan seen site internet Ngoy TV la chaîne de peuple aca numéro Serigne Aliou mu ngi noonu ci écran bi moon ngeen ko ci woo incha allahu rabbi aca ñu ngi leen di dox dox daje ba ci deuxième émission bi incha allah jaajëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa képp koo xamante ne ni abonné ko rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko Ngoye TV c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur leen di ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si